lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma jëmalul boppam soxna jaara sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbenda muy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ji fi nekkal maam Cheikh Ibra yebal ak njabootam nag ay rakkam ak doomam ak murid waaye jëwriñu yoon wi ñu nekk nag muy ndaw yi nga xam ni ñoo ko ñëwul fii teew muy sëriñ Cheikh Fall mii moom sëriñ Modou Moustapha Fall. ñu gën koo xam ci sëriñ Cheikh Ndiaye Mbengue mooy jëwriñu sëriñ Amdi Fall di loxoom di léppam mu boole ko rakkam yii ak njaboot gi ñu ñëw siyaareel ko bisub soxna jaara bi nga xam ni benn la ci àdduna ji nga xam ni nee du am ñaareel mukk moo waral nag bi mu fi toogalee Cheikh Ibrahima Fall mu bàyyi yitteem yëpp ñëw wuy si Serigne Touba muy Cheikh Mouhamadul Mountakha moo waral am Amdi ñëw Porokhane teew si waaye lam bëggoon nag mooy yëkkati jëmmam ja ñëw ba ci kanamu Cheikh Mouhamadul Mountakha mu jàkkaarloog moom waaye loolu dafa rëy ci moom lool moo waral rek mu yebal ndawam yii ñuy ay rakam di jëwriñam ni fi teewee rek teew na fi de. kon nee na sëriñ am di nee mi ngi teewaaleen mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall gi ak mboolem murit yëpp ak mboolem jullit yëpp ñëw gii mu ñëw daal fasaa leen la ci mboolem lislaam nee lislaam nag mooy jullit yëpp jullit yi ñooy murit yi murit yi ñooy sëriñ bi kon bu teewee teewaaleen na ñëpp kon ñëpp teew nan kon sëñ am dee nga siyaare di sant tey gërëm di yeesal nag alal jëm fi muy alali Serigne Touba jum teg loxol maam Cheikh Ibrahima Fall te muy jëwriñ ja jébbaluwaat Mbàkke yeesalaat ak njébbalam te fas yéene la ya nekkoon ak waajuram ya ak magam ya yoon woowee ñu awoon ba egsi fii moom rek la fas yéene yeesal aw ca woowee yoon mu yoonu ndigal fas yéene nee na fu mu nekk na xam ni yaa ko fa bàyyi sëg bëgg rek la fay déglu mi ngi ñaan nag nga ñaanal murid yëpp nag ban gën a jekku ndigalu Serigne Touba yëpp te yàgg koo jëfee nee mi ngi sant bu baax cee gërëm nee ñun nag suñ ñaanu njaam gin ñaan ñoo la koy doole ñaanal Mbàkke nee na jëmm ji teew. ba ci milliards milliards junniy ruu. ba ci milliards milliards junniy ñaan nañ suñu mu wéccel ñu ko sa ruu nga yàgg fi lool te ànd ko wér. ndax yow dey yow la suñu borom teg la ci kanamu yoonu murit wii. Serigne Touba it yow la doy loo. teg la ci yoonu murit yi. murit yi itam yow rek lan doy loo. yow rek lan am yow lan bëgg. ñaan yàlla sunu borom ci barkeb Serigne Touba ak darajey jaamam ba muy Cheikh Ibrahima Fall Mbacke Balla yan na nga fi gën a yàgg gën a wér gën a man li nga bëgg lépp yàgg ko liggéeyal Serigne Touba ànd ko mboolem lislaam jëpp sëñ bi nee na xolam sedd na guy yu nee mi ngi ñaan ci nag borom bis bi borom day du jeexal mukk dañ ne ku ko ñaan rek la bëgg. nee ñi ngi ñaan sunu maam jaara sunu dolli ngërëmam ya dolli leeram ya dolli xéwalam ya ba liggéey bi mu liggéeyal boromam ba lii ci feeñ kenn mësu koo teg bët kenn mësu am fenn muy Serigne Touba mii kon ñoo ngi ñaan ci sunu borom mu dolli seeni rek te yow mii fi toogal Seexul Xadiim murit yi fi taxaw yëpp ak yi fi taxawul ñëpp maase nañ ci di sant cey gërëm di la ñaanal Mbàkke nga yàgg fi lool ne lii nag daa am bis boo xam ne ca ginnaaw booba ak léegi mel na ni amaatagunu ko muy bis ba nga wootee woon di sant lu yàlla sunu borom ci boole gim ñu boole Serigne Touba ne loolu ci nga ñu doon sant loo yàlla nga def ko njukkal nag sa maam ja sa jawriñ ja muy Cheikh Ibrahima Fall muy bisub sikrullahi boobee nga wote woon ne loolee sedd na xolub jullit yëpp rawatina nag njabootu Cheikh Ibrahima Fall moo tax Serigne Amdi Fall nee na loole mi ngi ciy sant di ci gërëm di ci ñaan nag la nga ci bëggoon lépp Serigne Touba defal la ko ca xolu murid sedd nañ ci guyu ñaan nag jotaay bii mu yàgg lool ci sa loxo nee lii daal. bu mu doon suñ mujj gisee na ñuy gisa faawu rek tey man faawu tey ne ci sa bëgg faawu jërëjëf Mbàkke sëñ bi nee mi seer bu baax nee nu murit yëpp ak jullit yëpp nee ñu ngi naan ñaan jàmm nag ci réew mi ak àdduna jëpp waaye senegal gii ñu nekk nag ko ci tàmbalee ba génn rek ba daj fépp mbas mi fi nekkoon xam naa bu jeexulit cate na waaye na jeex tàkk rek la nga ca waxoon ni ndawal suñu borom la lan koo yabal si su ko soobee du fi yendu su ko soobee du fanaan kon noo ngi ñaan loolee nga xam ni ndaw yabal si woon la mu jël ko yóbbu ko fu kenn gisul ba génn murit yëpp génn julit yëpp ndew te wuutal fi loo xam ne nag day doon jàmm akuk wér ak i xéwal ko liggéey la Serigne Touba jërëjëf Mbacke sant bu baax jërëjëf Mbacke. mu ne kaddu yi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal yëkkati na ko. mu ne kaddu yi jarul dolli dara. mu ne ñun ñëpp dégg nañ ko. mu ne daañu ko mën a jariñoo. mu ne liñ ciy dolli rek moo di. mu ne ngeen siyaareel ko sëriñ Amdi. mu ne ngeen santal ko ko bu baax. mu ne gis mu ne fa tabaarakallaahu mu ne mi ngi amati mbégte mu rëy mu ne di ci dollee sant ak gërëm mu ne kon nag kaddu yi mu ne bu ànd ak jataay bi mu ne ak ndigalal sëriñ di mu ne yooyu yëpp mu ne du ci dolli dara lu dul mu ne lu dul fas yéene fedd la ay laxasaayam mu ne fas yéene yeesal ak jaayanteem mooy di leen ko seereel rek nag fas yéene ko ànd ak rek ba fa ñu tax a jóg mu ne mooy fa kanamu Serigne Touba mu ne jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf bismillah kon na ñëpp taal seen loxo. dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ma dellu kañaat bakaat waawaa wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat mam jaara ta tànk ci géejëm gi saxoo du su géeb lay lay la ci xeewal yi kor dellu seet duwaat maam jaara nawet baa ngi ah. waamew yàlla waa ngi di wal fu ne waay tax mu sax meññ toloo gum mu siqi waat maam jaara ku dëkkaale ak yàlla ngi ni ba jobaa ngi ku ay jaloore ngi nii di xudwatu saalihaat lu jim njaag ah. maam jaara di njaag ummu say xanaa

doy waaja taaru waat ku man góor ku raw kaa ngi ku rëy cër ku màgg ngi am ak pëste fa tey ku sàmm waat te sàmmam ga ak njaxlaf ga yin moo di gànjaram wasa bi xoona saa xoona ko daaj ji waat ilay tee maa jóg way fi ngeen jilin seewey ma jommalul boppam soxna jaara